Sud Matin, le journal. Bonjour. Au sommaire de cette édition, deux chauffeurs placés sous mandat de dépôt à Louga. Ils ont violé l'arrêté d'introduction du transport urbain épuré ouverture des écoles mai. Une décision sera prise avant lundi prochain. Les ministères concernés vont soumettre leurs propositions au chef de l'État, Macky Sall. Psychose à Sédhiou avec l'apparition du premier cas de coronavirus. Une centaine de personnes mises en quarantaine, la pandémie prend de l'ampleur

cette période d'état d'urgence pour stopper la propagation du covid dans le Ndiambour. Correspondance Lamine Gueye Saman. Malgré le couvre-feu et l'état d'urgence, malgré les arrêtés et autres mesures éditées par l'administration territoriale pour freiner la chaîne de contamination du Covid-19 dans le Ndiambour, des hors-la-loi continuent de braver certaines interdictions. Les limiers ont mis hors d'état de nuire deux conducteurs, l'un un taximan et se chargé d'oiseaux de Louga commune. Le second, conducteur d'un véhicule particulier, prenait le relais et transportait les passagers sur Touba, moyennant 12 500 francs par client. Même scénario pour le trajet inverse Touba-Louga. Après leur garde à vue dans les locaux du commissariat central, ils sont tous deux déférés au parquet. Ils sont accusés de complicité de transport illégal, de complicité de mise en danger à la vie d'autrui, entre autres. Plus de 67 vélotaxis sont également immobilisés au commissariat central de Louga. Leurs propriétaires n'ont pas respecté les arrêtés du préfet. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM. Lamine Gueye Saman, les écoles et universités seront-elles ouvertes ou non le 4 mai prochain? Dans tous les cas, euh, une décision sera prise avant lundi prochain. Les ministères euh, concernés vont soumettre leurs propositions au chef de l'État. La date de réouverture pourrait être maintenue ou encore reportée. Pour le moment, le ministre de l'Éducation nationale reprise des enseignements qu'on lui prête à travers les réseaux sociaux. C'est totalement faux, selon le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Moustapha Diagne, que nous écoutons. Il est Jean Pandé Khadija. Oui, ce sont des informations qui, effectivement, ne sont pas fondées. Donc, le ministère de l'Éducation nationale euh, a ses canaux officiels euh, par lesquels, euh, donc, il divulgue euh, des informations destinées aux différents secteurs acteurs du système éducatif. D'ailleurs, euh, ce n'est pas la première fois euh, que de telles informations sont, sont, véhiculées effectivement dans ces réseaux sociaux. Donc, le ministre de l'Éducation nationale donc, porte à l'attention de l'Éducation nationale et internationale que donc, euh, aucune décision n'a été prise. Le chef de président Macky Sall, lors du Conseil des ministres du 15 janvier 2020, a demandé aux différents ministres sectoriels, c'est-à-dire euh, euh, les ministères en charge de l'éducation, Eh, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et eh, celui de la formation professionnelle de travailler et de faire des, des donc des, propositions donc euh, de sortie de pandémie. Alors ces propositions-là seront donc soumises au, au de l'État et qui en relation avec les avec le comité eh, chargé donc de la lutte contre la pandémie certainement va prendre des décisions Euh, il va prendre une décision avant le 4. cela veut dire que toutes les hypothèses sont possibles. Donc les cours peuvent reprendre le 4, les cours donc, peuvent ne pas reprendre euh, le 4, mais tout cela va dépendre de, la décision du, chef de l'État qui certainement va, primer, euh, la santé des enfants. Et puis, multiplication des cas du Covid au Sénégal, la prise en charge des malades nécessite que le secteur privé soit impliqué, secteur qui représente 40% des activités médicales, sentiment du médecin-chef de Souma, assistant docteur Babacar Niang, que nous écoutons, il est déjà par Hapsa de Bon, nous, depuis le début, on s'est préparé. Malheureusement, on a vu que tout le système a été monopolisé par le public, alors que le privé quand même représente 40% des activités médicales euh, du pays. en médecine d'urgence, le transport médicalisé, on a été les premiers à le mettre en place dix ans avant même le SAMU. Je peux vous dire que la moitié du personnel du SAMU vient de Souma Assistance, donc vous voyez quand même, on

ce n'est qu'après que le professeur Mboub pu maintenir, faire rentrer son service euh, à la demande même de la population. Donc on est dans la même logique. Vous voyez, prendre un hôtel et aller mettre les gens dans un hôtel alors n'y a pas un personnel médical, les gens disent qu'on ne ménage pas leur chambre, on ne leur donne pas à manger, on vient même d'inventer un robot qui doit rentrer dans les chambres pour prendre les températures.

cet là et je pense que sous peu, euh, il va y avoir des réunions pour qu'on voit comment prendre en charge cette pandémie. pandémie qui est mondiale ne peut pas être prise par un seul groupe de soignants. Et puis à Sédio, la psychose gagne les populations suite à l'apparition du premier cas positif au coronavirus. Une centaine de personnes placées en quarantaine, y compris les proches immédiats du malade, le personnel de santé de Oudoukar et les agents d'une nouvelle radio implantée à Sédio. Par ailleurs, la forte mobilité des activités à l'intérieur du pays, souvent sollicitée par les citoyens pour recruter, pour rentrer au bercail, constitue une entrave majeure dans la lutte contre la propagation du covid dans cette région, d'où nous appelle Moussa Dramé. Cette apparition du premier cas testé positif au coronavirus à Mankonomba suscite des réactions multiformes dans la région de Sédiou. Si les gens se posent des questions sur les manœuvres que cet individu a faites pour quitter Louga et rallier son village, d'autres s'inquiètent du nombre de cas contacts qu'il a créés durant son séjour. Les

Doucar une vingtaine de prestataires de la radio qu'il a fréquenté. Quant au malade en question, il est envoyé au centre de traitement de Kolda, mais déjà des voix s'élèvent aussi pour réclamer une unité de traitement à Sidiou en prévision de toute éventualité. Par ailleurs, des présences de citoyens de retour clandestin à leur domicile en provenance de Touba, Dakar et Ziguinchor sont régulièrement signalés à Sidiou, d'où le renforcement du dispositif de à t on également appris de sources bien informées. Moussa Dramé Sédhiou Sud la pandémie prend de l'ampleur avec l'apparition du cas communautaire. Le médecin-chef de la région demande aux populations de rester chez elles. Correspondance Babacar covid sur la situation de la pandémie à le phénomène prend de l'ampleur. Une localité où il a été récemment signalé trois cas communautaires. Une situation inquiétante qui met la petite côte dans un état de psychose totale. Ce sont les commerçants qui bravent l'interdit malgré avant le virus. Même situation à Tivawan où les personnes qui ont été en contact attendent toujours d'être édifiées sur leur sort. Docteur Malik médecin chef de région à Thiès. À c'est la même situation. donc, nous avons trois cas, euh, cas donc ils sont des... Tivawan, comme on l'a dit, c'est des commerçants, comme il a dit, qui ont bravé la situation du couvre-feu, qui sont rendus à Mbour. Et devant, lorsqu'ils ont présenté des signes, le district sanitaire centaine de contacts. À ma connaissance, pour le moment, il n'y pas encore de résultats après ces trois qui ont été, de résultats positifs, donc après les trois qui ont été confirmés. Donc, euh, Occasion saisie par le médecin chef de région de Thiès, Malik Ndiaye, pour apporter des précisions sur le système de prélèvement concernant la maladie du coronavirus. Quand est-ce qu'il faut le faire et comment le faire, docteur Malik Ndiaye dafa am de cas. c'est parce nit jóge na fii rek dem ni kaay nit jóge na ci dëkk bi ñëw na fa paay prélevé ko danañ ñëw xool parce que quelquefois aussi am na ñoo xam ne ñuy attaqué ñu ne leen ñu ay docteur la ñu faj moo ñu tax a jóg képp koo xam ne dañaa war a jóg seete ko rek xam ne dañ ko war a jóg seet ñun demuñu fenn loolu rek la ñuy def du matin au soir Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM euh, Babacar Sow donc euh, de nouvelles mesures sont prises au marché des Parcelles Assainies le port de masque est obligatoire également dans tous les lieux étant les plus touchés par la transmission communautaire du covid Au marché Dior des parcelles assainies, ces derniers en sont bien conscients. C'est pourquoi la nouvelle conduite à tenir entre eux et les clients consiste au respect des mesures édictées par les autorités sanitaires, nous dit ces commerçants. Je m'appelle Abibnian et je suis commerçant au marché Dior. Et il y a beaucoup de commerçants parmi ces cas communautaires. Nous portons

saa yi si ñun la ëppee yàlla mi mën aar nag yal na aar ñëpp. décision yi ñu wax daal ñu ngi koy ñu ngi fagaru daal di ko def daal yàlla baax na. À chaque entrée du marché Dior deux agents municipaux sont préposés pour veiller au respect du port de masque ces derniers ne badinent pas avec les récalcitrants. ñu takk seen kóol yi du ñu nangu takk masque bu ñu dugg si biir marché ni jéem dem ku nekk takk masque ñëpp takk masque voilà. masque lañ a dugg. la propagation du coronavirus stricte avec la transmission communautaire des agents municipaux sont déployés pour veiller au respect des mesures édictives. Cependant, l'équation difficile à résoudre constitue la distanciation sociale au niveau des allées et artères du marché Dior des Parcelles Assainies. ni

mbokk yi jërëjëf euh, laaj Malick euh, juróom-ñaari waxtu mooy door a jot nu dellu si ci ndimbalu sunu borom ak kattanam am yéene jukkil leen xabaar yi euh, bokk na ci xabaar yi ca luga ci lañ koy daal di doore ak Lamine Gueye Samaan gannaaw ba nga xamee ne am na ñaar ñoo xam ne ñi dañ leen dal di jàpp itam gannaaw ba nga xamee ne ñoom kët dañu wax ne daal charte bi nga xam ne ñoom ay chauffeur dañ dañoon yóbbu nit ñi rek itam di leen toxal ci dëkk ak dëkk te loolu itam dañ koy aaye te loolu mën naa yokk tamit doomu jàngoro bi daan ci dëkk léegi ci biir xabaar yi tomb li ci ëpp mooy wopp ji nga xam ni moo di Covid 19 bi. Maodo Faye ñaari chauffeur yoo xam ne dañ leen a jàpp ba fi mu toll nii buur teg na leen loxo ca Louga euh, daanaka ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar ci ay vélo taxi yoo xam ne ñoom ñëpp jàpp leen yóbbu leen euh, yi nag ñoom bi ak lu euh, di rek di yóbbu gaa yi di yóbbu nit ñi di dem dëkk ak dëkk tukki bi di sataxalu ñu jàpp leen fële ca Louga Lamine Gueye Samane couvre-feu état d'urgence ak yenn dogal yi nga xam ne administration territoriale jël na nañ ko ngir bañ doomu jàngoro ji ñu wooye covid 19 law si biir njàmbur seet nañu am na ñi xam ne ba tey ñu ngi def lu ñu tere takk der yi teg nañu nag loxo ñaari doomu aadama yi nga xam ne ay dawalkat lañu kenn ki taximaan la da doon jël ay client di leen yóbbu ba fi nga xam mooy commune bu ngi di la sorewul lool fi nga xam mooy commune bu Louga ki si des moom oto particulier la yor su ko defee mu jël client yooyu kenn ku nekk fay ko ñaari junni ak mu yóbbu lay def gannaaw garde à vue si biir euh, commissariat central bu Louga ñoom ñaar ñépp day jébbal nañ leen procureur tribunal première instance bu Louga liñ leen di tuumaal mooy di def tappale ak njuuj njaace ba yëngu si dem bi ak dikk bi lu jaarul si yoon waaye itam seen pexe yooyu mënoon na indil gàllankoor dundu doomu aadama lu toll si juróom benn fukk ak juróom ñaari welo taxi itam tey ji fourrière nañ leen si biir commissariat central li ko waral mooy département bi digaloon na leen ko ki leen leen jotali xibaar yi fii si Louga Lamine Gueye Saman Sud FM li aju ci wàllu école bi ndax dafay ubbi ñeenti fan ci weer mai waaw wala déet loolu dara waragu ci xëy na kay ay daje yoo xam ne des na ko abal rek daal xëy na ngir waxtaane lépp loo xam ne jëm na ci wàllu fan fànn boobu la eh, jëwriñ ji ñu dénk wàllu njàng mi nag weddi woon na na gàpp boobu kenn jàpp ko am na nag waxtaan yu ñu ciy tëral ngir xool nu ñu mas mën def seen diggante ak kilifa yi Mouhamed eh, Moustapha Diagne waxtaan ci ak Ndeye Khady Diop donc ministère de l'éducation nationale euh, jugumul ci ci ñun waaw ñun am nañu ay kana officiels yoo xam ni ci liñ jàllale suñu information encore que président Macky Sall moom moo am prérogative ubbi école wala euh, tëj école yi donc demandé na déjà euh, les ministères yi nga xam ne aussi wàllu njàng bi muy formation professionnelle muy enseignement supérieur ak éducation nationale ñu liggéey ci naka la ñuy ci feebar bi. Euh, ginnaaw su fu jeexee donc euh, yooyu schéma yooyu yëpp ministère yi ñu ngi ciy liggéey daaj bu ñu paree daal ko jébbal euh, donc président nag bu dina ak information yi ñu am ci comité bi nga xam ne moom la dénk wàllu xeex feebaru Covid dix-neuf bi évidemment dina décision avant avant le quatre mais décision boobu jële ko ko donc moom rek moom moo mën a xam ndax le quatre dañuy jàngale déet wala boog day le quatre dañuy day dafay yokkaat suspension cours yi lu ci mën a doon aussi parents yi acteurs yëpp dañu def attention ci information yooyu euh, toujours bala ñu euh, jël benn décision ñu ñu laajte fi ñu a laajte en toute état cause nañu déglu président Macky Sall ak ministre de l'éducation nationale su jotee rek incha allah fi ñu war jaar wax leen njëkk mu leer dañ fa jaar incha allah. yi aju yi tamit rek ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu Covid 19 bi ak yokk gi mu yokk ci biir Sénégal fi nu toll nii ni ñu war a mën a taxawoo malade yi ñu duppee ko prise en charge bi fi nu toll nii ñoom itam euh, secteur privé bi ñoom dem ci seen jubu bopp war nañ cee mën a tabbal seen yoxo bu baax a baax rawatina jëf yi nga xam ne dafa jëm ci wàllu ko ak docteur loolu daal médecin chef bi nga xamee ne mooy docteur Boubacar Niang moom la yëkkati waxtaan ceeg xab sa élément woon ñu déglu ko. donc li ñu seetlu nag mooy ci pandémie bi ni ñu ko jëlee en charge au départ dañ ko pàccoo ci moo jël benn laboratoire tamit jox ko yëpp mu Pasteur transport médicalisé tamit bu bu ngeen fàttali ko ñu mën naa ko Sénégal depuis dix neuf cent quatre vingt six am naa avance vingt ans ci SAMU national mais dañu seetlu ko loolu yëpp Sénégal tamit quarante pour cent activité médicale privée moo yor quarante pour cent yooyu kenn mënul ñëw day def yëpp mënu leen euh, sóoraale ci biir question boobu commencé génn ñaa commencé waxtaan yor centre d' alerte bi leneen tey sax réunion pour xool nu ñu xoolewaatee situation bi te test yi tamit léegi ni mu commencé yàggee te dafa doy waar ngay dem sax ñu soupçonné la ne dañ lay jox ay quarante huit heures ay vingt quatre heures balaa ñu lay def test test boobu tamit ay médecin war nañ ko mën a yor ci seen cabinet seen client di ñëw ci sutura waaw ñun moom li ñu bëggoon mooy Sénégal yëpp naat lii jóge fi li ñu bëgg mooy si xeet bi mën a ci situation bi pour mën a rëcc yëpp la ñu war a boole kii ah, léegi ñëpp xam nañu ne am na doole bu fekkee moom mooy daaneel ay ah bu ñu ko bàyyee ñun rek ñu ne groupe benn ne moo ko yor ñëpp booloo ñu du mën a dem te loolu def naa du ñun ñu sax ñun ñoo ko laaj ñoom seen bopp constaté woon nañ ko dañu ne dañ doon defe ne affaire bi du àgg fii xam nañu ne àgg na fii ñu ngi xoolaat seen bopp te loolu yëpp nag c'est ñun ñëpp population bi lañ fi nekkal loolu la ñu war a bañ a fàtte amul kenn ku mën a wax ne man a faj seen waa Sénégal yëpp ci loolu argument boobu daal la ñu taxaw yaakaar ne que dinañu mën a gën a mën a jël en charge population bi ci bu ñu nee seetluwaat seetluwaat seetaatee seen bopp bu baax ca Sédhiou foofa tam tiitaange ak njàqare am na fa gannaaw ba nga xamee ne am na benn cas koo xam ne kii wopp ji daf ko dal mu di coronavirus bi lu toll ak nim bu takku ci ay doomu aadama nag dañ leen a ber mettre leen quarantaine yóbbu leen fële ber leen fa ci ab roq tam loolu bokk na ci sax ñi nga xam ne ñoo jege woon ki mu daw ki ki wopp ji dal ak itam ñi nga xam ne ñooy liggéey ci personnel santé bi ci waa kër docteur foofu la ci Oudugar ak itam ñi nga xam ne itam ñoo nekkoon di liggéey ci benn rajo bu nekkoon foofu la ndax waajoo jële wax nañ ne foofu dafa jaaroon Moussa Dramé coronavirus ci yaram waa ji la it am na lu bare loo xam ne it ñu la def ba ba ci diwaan bi lee di Sédhiou rawat na ci dëkkam bi lee di Mankonomba ñeneen ñi di àddu ci ñu mu jëflante it maanaam ñu mu jote laale ci biir dëkk dafa am ay yoonu sew ak yenn pexe yoo xam ne moom la doon jëfandikoo daaw ba ñëw yegsi ci dëkk bi la nga xam ne nee it def na ci ñaari ay bés gis waa ji lay ci boppam ne ñu it ab marabu la boo xam ne dafay waraate rawat na ci benn rajo boo xam ne it yàggul buñ ko sampee fii ci diwaanu Sédhiou dafa yor benn moto boo xam ne moom lay jëfandikoo di dox diggante Mankonomba ak it Sédhiou waaye tamit am na boo xam ne ñu bari ci laaj seeni bopp ana lan moo wundu wala boog may ko sañ-sañ muy def déplacement yooyu diggante Mankonomba ba ci Sédhiou am ci it commune yu bari yoo xam ne moom lay jaar te it amu ci benn sañ-sañ di autorisation special donte sax dem ak dikk boob le dañ ko tere laat nag ñu am tontu ci laaj yu bare fi toll nii tembe it toll na ci juróom-ñaari fukki nit ñoo xam ne ñoo di ay jegeñaalem fekk baax ci Mankonomba ñoo xam ne dañ leen ber ber bu nekk di quarantaine ak tamit mboolem ñoo xam ne ñoom ñooy liggéey ci poste de santé bu Oudoukar waaye tamit mboolem ñuy liggéey ci rajo boobu la nga xam ne si fa la àddu woon jamono yi moom ci jëmm boppam di woy malade bi dañ ko rawale yóbbu ko ci centre de traitement bu Kolda waaye fii ci diwaanu Sédhiou ñu bari tam lañ nañ di laaj mu am unité de traitement fii ci diwaanu Sédhiou ndax it paj boo xam ne na am ñu soxla ko ci beneen fànn it am na leneen loo xam ne tam na di jaaxle askan wi yeewu fii ci am na ñoo xam ne dañuy bàyyeekoo ci ay dëkk yu mel ni Touba Dakar ak Sikicoor te dara wunnu ko lu dul ñu bare ñoo xam ne tamit ay kilif lañ di ay autorités yoo xam ne dañuy dem di dikk ci biir réew mi te it ñuy yóbbaale ñoo xam ne it daanaka dañuy bàyyeekoo ci ay barab yoo xam ne it dañoo alawtiku wopp bi lay di mbas mi loolu yëpp tax na it ba ñu bare di sàkku buur ak it mboolem askan wi ñi gën ci bàyyi xel ngir aar wopp bi lay mu law ki doon jokkoo ak si ju Moussa Dramé pour Sud FM Moussa Dramé Covid 19 bi eh, ci ko wër ak ci diwaanu Thiès boobu jéego yu muy def ci gox yooyu le médecin chef bi nekk foofule ca diwaan boobu nag ne daal commerçant yi ñoom ñooy ñoo gën a daal di def jëf joo xam ne day mel ne day yokk yëf yi ndax dem beeg dëkk bi ak jàll bi ñuy def kilifa yi nag nee ñu daal itam nañu toog ci benn place te bañ di faral di dem ak dikk loolu mooy indi yëf li yëf yi li ko yokk Babacar Sow Covid 19 ni mbir mi tëddee ci diwaanu mbuur mi ngi tàmbalee jéggi dayoo ginnaaw bu ñu fi nemmeekoo ñetti cas communautaire di loo xam ne lii andi na tiitaange ak jàqare ci Petite Côte bi fii nga xamee ni ñu ci bëre seeni fit dem nañu suñu nemmeekoo ni ay jaaykat dong ñoo ko fiy faral di indi di jóge dëkk ak dëkk donte sax aaye nañu dem beeg dikk bi rawatina bu guddi gu jotee lu nu mel la ñu nemmeekoo ca diwaanu Tivaouane foofee tam ñi nga xamee ni ñoo doon nekk ak commerçant yi daal dañ leen yóbbu fi léegi ñuy négandiku ginnaaw bu ñu seetee laajtee seen yaram ndax am nañu jàngoro ji waa wala déet docteur Malick Ndiaye médecin chef bu région bu Thiès la ñu déglu. ñett yi nekk Mbour. à l'heure où parle actuellement am nañ sept cas yu ñuy suivre pour le moment parce que ñun bu leen fàtte ne cas boo gis rek am na cas contact yu bari ñu koy topp ñu leen di xool donc ci loolu la nekk ñu ngi ciy dox ñaan yàlla aussi mu dimbali ñu ci ndax feebar bi aussi ñu mën a xeex moom. c'est ñu xam Mbour c'est des gens ñoo xam ne dañoo jóge ci dëkk dem beneen dëkk jële fa feebar indi ko loolu rek la mais bu ñëpp toogoon feebar dafa lay lu doy waar la nit ñi nañu toog parce circulation du virus am na ci gox yu bari nañu toog bañ a yóbbu doomu jàngoro bu fa mu yeggagul mais am na gox yoo xam ne moom doomu jàngoro baa nga fi di dox nañu fexe génn ñëpp xam ñëpp ber faj leen su ko defee yëf yi yem foofu loolee tax na sax ba kilifa gi ngànk ndogali ci

ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax ay matuwaay yoo xam ne jël nañ ko euh, gannaaw ba nga xamee ne marché ba léegi nga xam ne moo di marché Dior bu Parcelles Assainies masque yi moom dañuy fokk rek moom ku fa dugg danga koy takk ak ko mën a doon ndax jaaykat yi am na ci ñooñ dañoo xaw a euh, yéeme loolu la mbokk mi wax Birama Ndiaye. nemmeeku nañ ci fan yi ne lii di transmission communautaire mu ngi gën a wulee ñaay ci commerçant yi fii ci marché Dior daal di nañ ko xam bu baax looloo waral ñu daal di jël dogal ñoom ñëpp bokk maase fonk tegtal yi nga xamante ne kilifay kër docteur daal dina ko joxe ñi ko xamle mooy yile jaaykat. maa ngi tudd Habib Niang marché Dior. gis nañ ne cas communautaire yi ci commerçant yi la ëpp jamono yi ñu toll nii ba ñun ñu ngi jël suñu matuwaay ñu ngi takk suñu masque ñu ngi garder distance yi un yi ñu ngi yore suñu sel di raxasu ak euh, saabu yi client yi itam ku ñëw dinañ la wax nga garder distance bi dinañ la jox sel nga raxasu yow gis nga man fekk nga maa ngi yor sel bi waaw ma leen di ñaax di leen di ñaan rek nañ jollee góorgóorlu fagaru parce que ku nekk am nga baay ca kër ga am nga yaay am nga maam te comme mag ñi ci la gën a aay ñun ndaw ñi ku nekk dafa war a fagaru képp ku nekk di bañ daal maa wàll diw daal ku nekk war na koo bañ diw lu marché bi bi la ñu daal di nemmeeku donte ne ñoo ngi fonk tegtal yi ñu leen jox. feebar bi moom moom ñëpp la laal surtout ñun commerçant yi ñoo gën a jaaxle sax ndax ñun fii ne boo waxee ñu ne commerçant yi si ñun la ëppee yàlla mi mën a aar nag yal na aar ñëpp. décision yi ñu wax daal ñu ngi koy def ñu ngi fagaru daal di ko def daal yàlla baax bu ñu ñibbee tamit balaa ñoo def dara il faut raxasu ba pare simi suñu yére yi ñu sol sangu ba set doo ko mën a toog wax ak nit ñi. ci buntu booy duggee ci marché Dior am am na agent yu bàyyeekoo mairie yi nga xamante ne ñoom lañ fa samp ngir rek ñu daal di xool ndax nit ñaa ngi sol seen masque agent yi leen nag ñu bàyyi benn yoon ku solul masque daal di dugg ci biir marché bi. ñu takk seen colis yi du ñu nangu takk masque bu ñu dugg ci biir marché ñu jéem dem ku nekk takk masque ñëpp takk masque voilà. masque lañ soxla masque ngay yor day soog a ngir daal di dakkal law gu muy law lii di coronavirus rawatina ci transmission communautaire ay agent municipal lañu daal di wàcce ci biir marché bu joor bu Parcelles Assainies wante. wante nag la jafe-jafe mooy distanciation sociale yi ñu nemmeeku ci biir xàll yi ak ruq-ruqaan yi ci biir marché yi dina jafe ngir ñu daal di ko fonk fii ci marché Dior bu Parcelles Assainies. Birama Ndiaye département bu Ndiarème ñu ne amagul benn cas boo xam ne bi daal. xayma nañ ko foofee ci Covid 19 bi koo xam ne ki dal na la ci biir département boobu la wax nañu ay matuwaay yu mag yoo xam yu mat yoo xam ne jël nañ ko fa préfet ba sax di Ibrahima euh, Fall moom joxe na fa sax benn ku ndoorte goo xam ne gi dañ doon séddale lépp loo xam ne aju na ci wàllu dund gi ak itam ay ay luy tolloog lépp buñ ko xaymaa dana jege xëy na ñaari million ci suñu ay koppar ñu jëmale ko ci ñi nga xamee ne seen loxo euh, jotut seen ginnaaw ay kàddoom ñu déglu ko ci micro Adama Ndiaye. amaguñu benn cas boo xam ne mënuñ ko donc loolu tamit sante suñu borom ah euh, dëgg la nag amoon nañ ay jumtukaay yoo xam ne jëloon nañ ko pour mën a fexe ba xeebi du dugg si biir département de Diourbel ci wàllu ay mesures yu bari si ay secteurs waaye ñaari lañ si seetlu woon rek yoo xam ne ay jafe-jafe ci askan wi muy wàllu ndaje yi rassemblement notamment ci biir yenn quartier yi ndaw yi parfois dañ doon daje ñii di tàggat yaram yu demee noonu mais heure bi ñu ko yëgee aussi jël nañ police wala gendarmerie ñu dem def liñ si li ci war waaye pour ñun war nañoon egg foofu ndaxte képp ku naan la sa bopp sa taal la bëggal donc ndaje yi suñ koy def rek c'est bu ñu moytu contact yi may moo tax ñu pour yaakaar naa ne euh, dem di réprimer warutoon am waaye nag heure bu amee nag ñu ngi koy def ñaareelu aussi muy nekk euh, jafe-jafe mooy wàllu dem beeg dikk bi muy transport urbain ak transport interurbain ñu seetlu bu baax na tamit am na ñoo xam ne dañu naan ñi ngi sàcc parfois di jël seeni oto wala moto di dem si yeneen euh, yeneen bërëb mais loolu aussi également ñi ngi ciy def lu ñu si mën ndax ànd ceeg aussi parfois même regroupement des transporteurs te li ci mujj rek mooy dem am na oto boo xam ne signalé woon nañu ko ne day def navette bi diggante fii ak yeneen bërëb te foo gis nañu jàngoro ba mu nga fa bu ñu ko xamee aussi jox nañ ko waay takk der yi ba démb fu naa ne oto boobu noonu tey jàpp nañ ko ci brigade Ndolo ñu si profité di ko ci félicité bu baax te ñu ngi continuer ndax am na yeneen yoo xam ne ñu ngi koy signalé mais jàpp nañ ne du yàgg aussi nañ leen teg loxo mais li am solo rek mooy ñaaxaat ñi nga xam ne ñooy def jëf jooju ñu xam ne la ñuy def it ñi ngi exposé seen bopp mais également ñi ngi exposé aussi population département de Diourbel ñu bàyyi pratique boobu tey ñaan rek feebar bi teel fee jóge ñu dellu si dans une situation normale. li aju yi tamit ca Ndar ñi nga xam ne yëngu ci wàllu uh, mbay mi ñoom tamit daal mbir mi tam ba léegi tawat ji bàyyiwu leen ndax itam wax nañu ne daal ñi nga xam ne daal ñoom ñoo di bay lépp loo xam ne fan yi ñu toll itam war ko mën a jaay itam ci produit yi ciy génne maanaam uh, dafa doy waar loolu dafa jafe ndax état bi matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko uh, ci boori Ndar googule ak daal kilifa yi dem beeg dikk bi moo tax nag daal ñoom ay jafe-jafe lool Yves mbirum njaayum produit agricole yi daanaka doon na lu jafe lool jamono ji ci ñi nga xam ni ñoo yëngu ci wàllum mbéy mi fii ci ndar ginnaaw bi fa wopp si di covid 19 jaaree kii di Amadou Balde muy njiitu kuréelu DRDR fii ci Ndar. donc Covid bi dafa intervenir fekk na ñu ngi si en pleine campagne contre saison froide métal nga mbéyum tamaate bañum soble mbéyum yeneen xeet en tout cas mbéy yooyu nag mise en œuvre amuñu woon benn difficulté difficulté bi dafa feeñ si mesure nga xam ne jëloon nañ ko. mesure confinement bi mesure de restriction am na ne dootu ñu def réunion dootuñu def jaay ci place marché hebdomadaire yi dootuñu jaay aussi centre groupage yi loolu nag indi na jafe-jafe en tout cas ci producteur ci wàllu commercialisation bi. muy mbir bu nga xamee ni tax na ba tey jile ñu daal di dàkkal bépp dajaloo ñi nga xam ni ñooy yëngu ci wàllu mbéy mi fii ci Ndar. fin du mois dañ doon organiser ay réunion autour du gouverneur wala ñu dem Dakar réunion de coordination réunion yooyu yëpp dañ ko dàkk takk mooy de confinement bi ndax arrêté yi nga xam ne ne état bi jël na ko pour vraiment permettre nga xam ne ne dañuy sécuriser en tout cas les populations par rapport à cette pandémie te réunion yooyu dafa am solo dafa doon mel ni comme conseil de ministres pour ñun au régional. a ah, bokk na itam ci jafe-jafe yi moo di rek picc yi nga xam ne ni dañuy fara wàcc ci tool yi saax saaxe lañu fa béy. xam nga picc moom xamul Covid donc ñu ngi tourné diggante ñaari réew mi. donc fu mu nekk nii moom amuñu ay mesures de restitution. waaye daal ak mu mënti doon ñi nga xam ni ñoo yëngu ci wàllum béyum ceeb ñoom daanaka jot nañu yokk li nga xam ni moom la ñu daan béy ci diwaanu vale bi. dafa mel ni sax Covid bi dafa indi engagement davantage pour ñu mun a yokk seen superficie donc ñu ngi doon yaakaar ay vingt quatre vingt cinq mille hectares. mais presque tey ñu ngi tey jii bokk na ci ndimbal bi bàyyeeku ci nguur gi moo di rek subvention bi nga xamee ni def na ko ci lu soxal intrant yi maanaam lu jëm ci mbirum jiw gi ak it engrais bi nga xamee ni dina ko yombal béykat yi.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 Malgré le couvre-feu et l'état d'urgence, malgré les arrêtés et autres mesures éditées par l'administration territoriale pour freiner la chaîne de contamination du Covid-19 dans le Ndiambour, des hors-la-loi continuent de braver certaines interdictions. Les limiers ont mis hors d'état de nuire deux conducteurs, l'un un taximan et se chargeait d'acheminer les voyageurs jusqu'à Ngidila à quelques vols d'oiseaux de Louga commune. Le second conducteur d'un rembourser les passagers sur Touba moyennant 12 500 francs par client. Même scénario pour le trajet inverse Touba-Louga. Après leur garde à vue dans les locaux du commissariat central, ils sont tous deux déférés au parquet. Ils sont accusés de complicité de transport illégal, de complicité de mise en danger à la vie d'autrui, entre autres. Plus de 67 vélotaxis sont également immobilisés au commissariat central de Louga. Leurs propriétaires n'ont pas respecté les arrêté du préfet. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM. Lamine Gueye Saman, cri de détresse des Sénégalais bloqués aux États-Unis. Il demande au chef de l'État euh, euh d'autoriser le vol Delta qui assure la liaison Dakar-New York à atterrir au Sénégal afin qu'ils puissent regagner leur pays. Nous écoutons à ce propos Modou Ndiaye, le porte-parole. Il est avec Denis Jassam. Moi, j'étais allé voir mon frère pour euh, regagner Dakar. Je me suis retrouvé tout subitement bloqué sur New York parce que Delta, selon les informations de Delta, l'État du Sénégal a fermé son aéroport, ne veut pas donc autoriser l'atterrissage de Delta. Du coup, je me rends que nous sommes une poignée de Sénégalais, à peu une cinquantaine, bloqués ici, euh, nous sommes des non-résidents. C'est pas des Sénégalais qui vivent aux États-Unis États-Unis qui veulent rejoindre Dakar. Non, nous ne vivons pas aux États-Unis. Certains sont venus ici soit pour un petit training, un petit stage, une visite familiale extérieure comme ça a été le cas pour moi. Parmi nous, un large contingent de femmes qui des mères de famille, même une femme enceinte et tout, des personnes âgées qui ne demandent qu'une seule chose, qu'on leur donne l'opportunité de retourner chez eux. Et puis les écoles et universités seront-elles réouvertes euh, à nouveau le 4 mai prochain? Dans tous les cas, une décision sera prise avant lundi prochain. Les ministères concernés vont soumettre leurs propositions au chef de l'État. La date de réouverture pourrait être maintenue ou euh, encore reportée. Pour le moment, le ministre de l'Éducation nationale ne déroule aucune stratégie de reprise d'enseignement qu'on lui prête à travers les réseaux sociaux. C'est totalement faux, selon le directeur de la formation et de la communication nationale, Mohamed Moustapha Diagne Oui, ce sont des informations qui, effectivement, ne sont pas fondées. Donc, le ministère de l'Éducation nationale euh, a ses canaux officiels euh, par lesquels, euh, donc, il divulgue euh, des informations destinées aux différents secteurs, acteurs du système éducatif. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que de telles informations sont, sont véhiculées, effectivement, dans ces réseaux sociaux. Donc, le ministre de l'Éducation nationale donc, porte à l'attention de l'Éducation nationale internationale que donc, euh, aucune décision n'a été prise. Le chef de l'État, le président Macky Sall, lors du Conseil des ministres du janvier a demandé aux différents ministres sectoriels, c'est-à-dire euh, euh les ministères euh, en charge de euh, le ministère de nationale, le ministère l'Enseignement supérieur et celui de la formation professionnelle, de travailler et de faire des, donc des, des propositions donc euh, de sortir de pandémie. Alors ces propositions-là seront euh, donc soumises au, au de l'État et qui en relation avec le comité euh, chargé de la lutte contre la pandémie certainement va prendre des décisions va prendre une décision avant le 4. cela veut dire que toutes les hypothèses sont possibles. Donc les cours peuvent reprendre le 4, les cours donc peuvent ne pas reprendre le 4 Mais tout cela va dépendre de, la décision du, chef de l'État qui certainement va, primer, euh, euh, donc la santé des enfants.

tout le système a été monopolisé par le public, alors que le privé quand même représente des activités médicales euh, du pays. en médecine d'urgence, le transport médicalisé, on a été les premiers à le mettre en place dix ans avant même le SAMU. Je peux vous dire que la moitié du personnel du SAMU vient de Souma Assistance, donc vous voyez quand même, on s'est

Sénélec après que professeur Mbouba a pu maintenir et rentrer son service à euh, la demande même de la population. Donc on est dans la même logique. Vous voyez, prendre un hôtel et aller mettre les gens dans un hôtel alors qu'il n'y a pas un personnel médical. Les gens disent que ne ménage pas leur chambre, on ne leur donne pas à manger. On vient même d'inventer un robot qui doit rentrer dans les chambres pour prendre les températures. Donc vous voyez, donc cette partie de soins des gens qui ont aussi leur maladie, parce que n'oubliez pas que les gens qui viennent même en quarantaine ont déjà des maladies. Donc quand ils sont mis en quarantaine dans un hôtel isolé, comme on la grosse, qu'ils risque même des problèmes respiratoires,

Et puis à Sédio, la psychose gagne la population suite à l'apparition du premier cas positif du coronavirus. Une centaine de personnes placées en quarantaine, y compris les proches immédiats du malade, le personnel de la euh, de santé de Oudoukar et les agents d'une nouvelle radio implantée à Sédio. Par ailleurs, la forte mobilité des activités à l'intérieur du pays, souvent sollicitée par les citoyens,

tout le personnel du poste de santé de Oudoukar et une vingtaine de prestataires de la radio qui l'a fréquenté. Quant au malade en question, il est envoyé au centre de traitement de Kolda, mais déjà des voix s'élèvent aussi pour réclamer une unité de traitement à Sidiou en prévision de toute éventualité. Par ailleurs, des présences de citoyens de retour clandestin à leur domicile en provenance de Touba, Dakar et Ziguinchor sont régulièrement signalés ou en provenance des villes contaminées a-t-on également appris de sources bien informées. Moussa Dramé Sédhiou. Sud FM. Moussa Dramé, difficile de faire du sport avec un masque de protection sur le nez et la bouche en cette période de de Ramadan. Le coronavirus a bousculé euh, toutes les habitudes des sportifs qui éprouvent d'énormes difficultés euh, pour pratiquer les sports favoris. Reportage Amadou Moustapha Dieng. tandis que d'autres entament un jogging en solo comme d'habitude. Et pourtant, il y a un changement de taille. Porter un masque en pleine séance d'entraînement et de surcroît pendant le ramadan, ce n'est pas évident. C'est même très pénible pour la respiration. Parole de sportif essoufflé. Oui, c'est difficile. C'est difficile de, de, respirer, bien sûr, oui, en courant, vraiment. Avec le masque. Avec le masque, mhm. oui. Mais n'empêche, vous le portez. Oui, n'empêche, on le porte, oui, n'empêche, on le porte. Mhm. Oui, mais vraiment, la maladie on veut venir ici pour mais c'est très difficile, hein, c'est très difficile. De l'autre côté du terrain, un autre sportif s'entraîne. Il nous explique qu'il est obligé d'observer des mesures barrières durant son séance de jogging. C'est pas facile. Mais on fait avec une situation qui demande. Euh, il faut te protéger. Mais euh, il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Moi, personnellement, si je viens, j'évite les gens, quoi. Je prends l'espace. Maximum, ça à 6 mètres. Je m'entraîne. Si je vois beaucoup de gens, et masque. Oui, c'est pas facile. C'est très chaud dedans, mais on fait avec. Eux. Tel n'est pas le cas pour cet homme qui effectue des sprints à vive allure, mais ne porte pas de masque. Il explique pourquoi. daf ma tere nooy. waaw su ma su ma su ma taxee kon ni may doon activité yoon saa mu noonu lii may soxla air boobu noonu may soxla. donc bu may ñëw balaa may daw damay damay tax waaw. coronavirus entraînement et ramadan ne font pas bon ménage mais ces sportifs conscients du danger que représente la maladie sont obligés d'observer les mesures de protection protection, car pour eux, il est évident qu'il vaut mieux porter son masque et respirer difficilement que d'être étouffé par le coronavirus. Amadou Moustapha Dieng lancement de la plateforme de droits des filles pour lutter contre les abus et atteintes aux droits des filles en cette période de pandémie la plateforme nationale va proposer des pistes de solutions sur le retrait des de la rue dans le but de les protéger contre le Covid-19 et pour la protection des droits des enfants s'inquiètent de la situation de silence notée dans les institutions qui jadis recevaient des dizaines Oberdinator, représentant Plan International, un blackout. C'est le silence. Il n'y a pas de signalement, il n'y a pas d'alerte, alors c'est le silence radio. Et la question que nous nous sommes posée tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe derrière ce silence Et quand ce silence va être rompu, qu'est-ce que nous allons apprendre sur les violations et les abus sur les droits des filles avec tout ce contexte de confinement, de promiscuité et tout ce que cela implique

aujourd'hui qui est au cœur du, des préoccupations de l'État du Sénégal. Selon Awanias, coordonnatrice du réseau des jeunes pour un développement participatif, le confinement pourrait engendrer des violences conjugales. Elle invite les filles à la dénonciation. Ah, étant donné que beaucoup d'acteurs ne peuvent plus être en contact direct avec ces cibles donc il faudra que ces cibles puissent elles-mêmes plutôt puissent euh, prendre en charge cette dénonciation-là, pouvoir dénoncer, mais surtout pouvoir se protéger elles-mêmes dans ce contexte du covid Le retrait des enfants de la rue en ces de pandémie saluée par les acteurs, ces derniers préconisent de pousser la pour des solutions durables. Moussandoy, coordonnateur du projet USAID de non. Je pense qu'aujourd'hui, plan nous invite un peu à réfléchir sur la prospective que nous devons avoir pour mieux réussir en fait le pari du retrait et mettre les enfants dans d'excellentes conditions. Des propositions seront faites aux autorités compétentes sur son projet de retrait des enfants talibés banlieue dakaroise El Hadj Moussa Thiam rajo Sud FM. El Hadj Moussa Thiam bras de fer entre la maire de Notto Gouye Diama une partie de ses conseils tout est parti de la décision de l'IDIL mais de qui de manière unilatérale a décidé de privatiser le marché pour les transports et les femmes qui détiennent des étals en cette période marquée par

avons soutenu dans ces décisions les plus sages. Quand il s'agissait de construire le marché de notre gouvernement, nous nous sommes battus et nous savions que ça allait être un intérêt parce que le marché avait une vocation sous-régionale. Donc il fallait se battre pour que le marché tienne. Nous l'avions fait. Nous l'avons soutenu dans ces décisions les plus sages. Mais aujourd'hui, la décision qui a été prise a été une décision inopportune.

et la souveraineté alimentaire de notre pays. Et à ce que je sache, le CNCR, en tant qu'organisation professionnelle, n'a pas tellement été impliqué dans la conception de ce dossier. Et comme le dit l'adage, tout ce qui est pour nous, sans nous, est censé être contre nous. Et donc, euh, nous pensons que là, ça n'a pas été une attitude qu'on a appréciée par rapport à ce document-là qui circule, est-il est authentique, pas authentique, nous voulons être édifiés là-dessus. Et autre chose, comme l'hivernage approche à grands pas, à pareille époque, Il était de mise que les commissions soient mises sur pied, que les notifications soient connues, que ceux qui ont eu à être notifiés sachent où est-ce qu'ils doivent amener les semences. Mais jusqu'à ce matin, il me semble que les notifications commencent à tomber, mais par contre, et il est bon que les gens sachent le stock disponible en semences, en semences certifiées de qualité, où est-ce qu'il faut les amener. Et le stock disponible aussi en fertilisant, en fertilisant engrais, engrais chimique comme engrais organique, pour s'inscrire un peu dans la dynamique du PSE vert. Mais tel ne semble pas être tellement le cas et nous pensons qu'il est temps que les techniciens associent les organisations professionnelles à la réflexion. pour un Sénégal meilleur, pour un Sénégal autosuffisant. On ne peut pas produire de riz sans les producteurs. On ne peut pas produire le maïs sans les producteurs. Qui dit euh, agriculture pense d'abord aux intrants et autres subventions. Quels sont vos souhaits par rapport à cela? ce qui est des semences, il faut que l'État sache que l'année dernière, l'hivernage passé n'était pas des meilleurs n'étaient pas des meilleurs et si des gens ont choisi à mettre à notre disposition des semences qu'ils soient des semences de qualité des semences de qualité à des dont les prix de cession au niveau des points de collecte soient revus à la baisse à ce qu'il me semble quand j'ai vu la note circulaire fixant les prix de cession, pratiquement c'est le même niveau de prix de l'année dernière qui a été reconduit. Alors que que n'a pas été des des arachides ont été très intéressants. Les la barre des 250, mais cela ne signifie pas que cela ne va pas entraîner qu'on maintienne et la fermeture des marchés forains, une des producteurs sont dépourvus de moyens parce qu'ils ne pourront pas écouler les marchandises pour acheter ces semences. Aujourd'hui, on moins à défaut de 100 à 125 francs le kilo. On ne demande pas la gratuité des engrais, mais que leur prix soit réduit que ce soit pour les engrais, que ce soit pour les semences arachides, que tout soit revu, que la subvention au

entendu par le chef de l'État, au même titre que les autres organisations professionnelles, même tel n'est pas été le cas, mais nous avons remis au maillet une note en tant que CNCR, un mémorandum montrant nos préoccupations sur tous les secteurs. Et je pense que ces préoccupations seront prises en compte au niveau de son ministère et qu'il les appliquera ou bien va nous appeler pour échanger et discuter avec lui sur nous proposons comment nous comptons aborder la campagne, comment nous allons euh, la traiter, comment nous allons euh, l'aborder, comment nous allons la gérer pour que le Sénégal ait son autosuffisance alimentaire en riz mhm. et en toute spéculation. Et nous pensons que vraiment c'est ça et que la subvention soit réduite à la hausse et que le quota agro-producteur aussi, comme il l'avait dit à déjà, il sera supprimé et que ces derniers-là n'ont pas besoin d'être appuyés, n'ont pas besoin d'être soutenus dans ce contexte. Que ce quota soit purement et simplement supprimé, que toutes les graines d'arachide destinées pour les semences aillent aux petits producteurs, aillent aux exploitations familiales qui en ont besoin et qui vont l'acheter au niveau des points de collecte. Euh, C'était ça notre point de vue par rapport au déroulement de la campagne qui est en vue et nous pensons que l'État prendra largement en compte nos préoccupations. Sud FM vous remercie euh, Sidiba. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du euh, CNCR. Maodo Faye jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak ñun juróom-ñett waxtu mooy door jot nu daal di dawre rek xabaar yu fële ca Louga gannaaw ba nga xamee ne jàpp nañ fa ñaari chauffeur bu yóbbu leen ci kaso bi ndax kat ñoom dañ doon def transport di yóbbu nit ñi di ko nëbbu ak jàppaale luy tollook juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ay vélo taxi Lamine Gueye Samane couvre-feu état d'urgence ak yenn dogal yi nga xam ne administration territoriale jël nañ ko ngir bañ doomu jàngoro ji ñu wooye covid 19 law si biir njàmbur seet nañu am na nga xam ne ba tey ñu ngi def luñu ñu teree takk der yi teg nañu nag loxo ñaari doomu aadama yi nga xam ne ay dawalkat lañu kenn ki taximan la da doon jël ay client di leen yóbbu ba fi nga xam mooy commune bu ngi di la sorewul lool fi nga xam mooy commune bu Louga ki si des moom oto particulier la yor su ko defee mu jël client yooyu kenn ku nekk fay ko ñaari junni ak juróomi téeméer mu yóbbu leen ba Touba buy wàññeekoo itam lu ni mel lay def grand garde à vue si biir commissariat central bu Louga ñoom ñaar ñëpp day jébbal nañ leen procureur tribunal Casamance Louga liñ leen di tuumaal mooy di def tappale ak njuuj njaace ba yëngu ci dem bi ak dikk bi lu jaarul ci yoon waaye itam seen pexe yooyu mënoon na indil gàllankoor dundu doomu aadama lu toll ci juróom benn fukk ak juróom-ñaari welo taxi itam tey jii fourrière nañ leen ci biir commissariat central li ko waral mooy seeni ay borom dëppoowuñu ak digle yi xam ni préfet département bi digaloon na leen ko ki leen leen jotali xibaar yi fii ci Louga Lamine Gueye Samane Sud FM Lamine Gueye ay nit ay sénégalais yu nekk nekk fële ca Amérique sakk ko fa mënuñoo dem mënatunoo dikkatam bëgg nag nguur gi jàppale leen ba ñu dellusiwaat ñu ne daal nañu leen waroon a may sax ñu jël et vol bi nga xam ne moo di Delta nga xam ne daañu dana mën a jóge Dakar ba euh, New York daal ndax daal ñoom jaxasoo nañ te mënunoo dem dikk itam mbir mu metti lool Abadou moom itam dikkaat ci mbir yi leeral daal tolof tolof yi ñuy jànkonteel ci micro Denis Samb. man de dama bokk ci sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo bloqué wu ci États-Unis d'Amérique donc fi mu nekk ni on est vraiment confronté à de vraies difficultés ñun ay mère de famille lañ parce que fi mu nekk nii on on s'est constitué en collectif boo xam ne ni mi ngi yegg ci quarante cinq personnes. et ci liste boobu boo xoolee. 33 wala même plus sont des femmes mères de famille am na ñoo xam ne ay bébé wu un bàyyi ñii ay bébé wu trois ans ñii seen doom yi am na dañoo xam ne ñu asthmatique on est vraiment dans le désarroi metti na ci ñun ba fu metti mën a yem parce que affaire bi personne n'a vu des choses venir ça été trop brusque ñii ñëpp dañ fi ñëwoon pour diverses raisons yëpp nekk ci wàllu sa liggéey wala sa say activité bopp ba suñu borom indi dogal bi ñu nangu ko ndaxte lii ñëpp la bett kenn sóoru ko fen bi mu indee dogal bi ñu nangu ko Sénégal tëj ay frontière am ñu koy saluer ndaxte comme ni état yëpp def la def loolu lu ko war la on a pris notre mal patience ñu toog ba le 17 on apprend que ça a été prolongé jusqu'au 31 mai te fi mu nekk nii rien n'est encore sûr parce que feebar bi kenn mënu la wax ne maîtriser na ko donc vraiment ñu ngi dund ci stress bu metti metti metti boo xam ne foo ko natt rek na ko condition yu nekk doy na waar am na ñoo xam ne ñi ngi ci ay hôtel am na ñoo xam ne Airbnb lañ jël seen xaalis a ngi jeex amuñu ñaata temps lañ fi toog donc yooyu yëpp nekk daal lu vraiment lu métte métte métte lu ke mënul expliqué buñ autorisé woon benn vol fii ñu nekk ci Amérique buñ autorisé woon ku mel ne Delta ne ko mën na atterrir ci sol sénégalais ñun ñu jël suñu billet retour bu jaree dolli suñu xaalis ñu jël ci suñuy poche dolli suñu xaalis fay suñuy billet ñu delloo si waat ñu ci jàmm ak salaam te buñ yegsee ci jàmm ak salaam bañuñu ku ñu quarantaine parce que xam nañ li xew on est des responsables nañ ñu quarantaine ba suñuy jour de quarantaine mat ñu testé ñu ku ci mën a ñibbi sa kër ñibbi war toog ñu faj la bu dee da nga am jàng feebar ñu ñaanuñu ko yàlla ñu faj la mais vraiment son nañ son nañ ba fa sonn mën a te jàpp nañ ne ay citoyens sénégalais lañ a part entière am suñu activité yépp Sénégal mais dañuy ñaan son excellence monsieur le président de la république ñu ngi toog di déglu te di xalaat ne suñu président patriote la donc ñun ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp di woo autorité gouvernementale yëpp ak consulaire yi ku ci nekk lan ci man nga jàppale ñu ko ba ñu dellu suñu famille li aju ci wàllu école bi ñi ruumandaat naan day tijjiwaat ñeenti fan ci weeru mai ñu nekk ci waa kër ministère bi ñu dénk wàllu njàng meeg gàddu ko ñoom nee ñu loolu waxuñu ko am na nag ay waxtaan yoo xam ne amaana ñu teg teg ko waxtaane ko xool daal nu ñuy def fekk ñeenti fan ci weeru mai waaye waxagul mbir mu dem noonu te information boobu jógewul ci ñoon ci ñoom Mouhamed Moustapha Diagne waxtaan ci ak Ndeye Khady Diop. waaw xabaar yooyu donc ministère de l'éducation nationale jugumul ci ci ñun waaw ñun am nañu ay kana officiels yoo xam ni ci liñ jàllale suñu information encore que président Macky Sall moom moo am prérogative ubbi école wala tëj école donc demandé déjà Euh, les ministères yi nga xam ñoo seex wàllu njàng muy formation professionnelle muy enseignement supérieur ak éducation nationale ñu liggéey euh, ci naka la ñuy génnee ci feebar bi euh, ginnaaw su su jeexee donc yooyu schéma yooyu yëpp ministères yi ñu ngi ciy liggéey daaj bu ñu paree daal ko jébbal donc président nag bu dina ak information yi ñu am ci comité li nga xam ne moom la dénk wàllu xeex euh, feebaru Covid 19 bi évidemment dina jël décision avant avant le quatre mais euh, décision boobu euh, jëlee ko ko donc moom rek moom moo mën a xam ndax le quatre day jàngale déet wala boog day le quatre dañuy day dafay yokkaat suspension cours yi. lu ci mën a doon aussi parents yi acteurs yëpp dañu def attention ci information yooyu toujours bala ñu jël benn décision ñu ñu laajte fi ñu war a laajte en tout état de cause nañu déglu président Macky Sall ak ministre de l'éducation nationale su jotee rek incha allah fi ñu war a jaar wax leen ngir ba yi nga xam ne ñu ngi wax wàllu Covid 19 mel ne ne fi ñu toll nii lu bare bari desandi na ci ndax nga defagun ci ay tomb yoo xam ne mën naa dalandi xel ci atum 2020 Sidi Ba jokkoo ci ak Habs Elman woon. d'habitude daan nañ liggéey ak nit ñi balaa ñuy tàmbale nawet bi daan nañ ci yëgal mais nag covid deux mille dix neuf ñun xaw a jafel a yi et liñ ci xaw a jaaxal ñun am na document boo xam gis nañ ko mu ngi daw wani euh, Mayer mu ngi préparé covid deux mille dix neuf covid deux mille dix neuf riposte covid deux mille dix neuf et ñun ci biir CNCR di fekkuma waxtaan ma ndaje boo xam ni laaj nañ ci suñu xalaat et que loolu ci bu amee itam vraiment man rafetlu ma euh, jàpp naa ne mënuñu wax li jëm ci mbéy li njëriñ béykat yi leen indil euh, njëriñ te boolewuñ ci ñu ko yéeyoo ñu ko yéeyoo moo di béykat sàmmkat ak nappkat et que ñun ñi waroon nañ ci indi suñu xalaat wax nuñ ko gisee ak naka la ñu bëgg mu doxee waaye ci nu ñu seetlu daal euh, ci document bu moom bu dee moom la may war a taxawal technicien mi war a xalaat ngir suqali mbéy ngir suqali àll bi njort nañu nañu def ci sur place ay at yu et que nañ itam ni tënk ci loolu itam euh, ñun di am indi ñu ci suñu xalaat alors que ñun suñu jëm bopp amoon na mbir moo xam ne jotoon nañ ko bind tënk ko jox leen ko ci wàllu mbéy de manière générale et suñ ko jëlee en compte njort nañu dina suqali réew mi dina suqali mbéy mi et loolu itam euh, daanaka par rapport ak li ñuy génne ak lu ma gis bu dee dëgg la de vraiment jot naa ni loolu dina xaw a doy waat trop. et que beneen affaire itam comme ni nga ko waxee effectivement nawet baa ngi ñëw heure bi daan nañu taxawal ay commission ay commission yoo xam ne distribution commission de distribution des intrants mise en place intrant yi ñi ñi jot seen notification xam fu ñu gerte gi ak gerte ak poids bu ñu fa yóbbu yooyu yëpp ñu war ko def loolu yëpp nag euh, ba tey notification maa ngi laaj ni mais am na ñoo xam ni jotaguñ ko ba jotaguñ ko ba léegi tamit li aju ci wàllu Covid 19 bi fii ni toll nii ni nga xam ne noonu la ñuy taxawoo malade yi prise en charge boobule jaadu na itam ñi aju nekk ci secteur privé bi di ci tabbal seen ay ndax loole bokk na ci li nga xam itam seen warugar la waaye jaadu na itam nga ne mbir yi itam ñu daal di koy mën a euh, wér ndomba docteur Bokar Niang moom la waxtaan ak kii di Habsa Elimane woon ñëw. donc li ñu seetlu nag mooy ci pandémie bi ni ñu ko jëlee en charge au départ dañ ko pàccoo ci benn groupement public bi rek moo jël yëpp jël benn laboratoire tamit jox ko yëpp mu doon institut Pasteur transport médicalisé bi tamit bu bu fàttalu ko ñu mën naa ko jëkk def Sénégal depuis dix neuf cent quatre vingt six am na avance su vingt ans ci SAMU national mais dañu seetlu ko loolu yëpp Sénégal tamit quarante pour cent de l' activité médicale privée moo ko yor donc quarante pour cent yooyu kenn mënul ñëw ne def yëpp mënu leen euh, sóoraale ci biir question boobu nag moo commencé génn ñaa ngi ciy commencé waxtaan récemment nag